Sukkuwe mënu jàpp ni dafa suqi Real Madrid ba deseetul benn donc nag loolee ci match amical bi Milan AC doon football waaye match boobee test la woon ngir mën a xam daanaka waajtaay gi équipe bi la di am euh, ci Real Madrid info matinal yi yéen a ngi dégg noonu ginaar yi di sab ndax solos euh, émission bi wala solos li nga xam ne mooy xibaar yi ci suba gi teel loolee lay demee euh, di ci xorom bu baax a baax nag bu ñuy dégg ginaar yi sab waaye ma bëgg leen bu baax a baax ñaanal leen jàmm ak salaam ak afiya yàlla yàlla suturaal leen ci xëy mi nga xam ni yéen a ngi koy xëy di wuti dara dañ koy commencé nag xibaar yi ak match bi nga xam ne Real Madrid doon na ko def ci suba gi abonné ngeen ba pare merci match baa ngoo commencement bi ñaari euh, équipe yi ñëw nañ taxaw nag fële ci Chicago Euh, ngeen gis ni match bu mucc ayib bi leen fa def taxawaay yi nag rafet na sàppe bi jub na stade bi xam nga Real Madrid bi football tubaab yi dañoo bëgg football euh, surtout américains yi nga xam ne foofee Real Madrid foo moom la ñuy nooyee quelques séquences ñu wane ko ginnaaw loolee séquences yi nag du leen lul gis ngeen ko pour la première fois mu titulaire pour la première fois dugalul paasul décisif waaye nag euh, def na fa ay match yu am am solo nag ak ay déplacement ak ay marquage nangam ak nangam donte amul ay bit ndox nee naa la équipe bi gars yi gënoon xale la ay xale lañ ay quelques dribble ñu gis ni ndànk-ndànk nag moo ko euh, li nga xam ne mooy italien yi mu wane fa lu ama am solo moom mi nga xam ne nag mooy international euh, brésilien lépp doon tawfiq gars yi maa ngi bëgg képp koo xam ne yaa ngi nii toll di ma suivre yaa xam am merenga nga yaa xam Barcelone nga lépp lu mu ci mën di doon daal taxawaay bi am na solo gis nañ ko live TikTok bi doon def démb gis nañ taxawaay bi ngeen ci am loolu lépp mbégte la ñu gis ba tey nag ñu gis ni gars yi digg dëgg dëgg dëgg démb yi si match bi mooy match entraînement la waaye match la boo xam ne rek wax naa leen ko Real Madrid bay jóge foofee dana fa rapporter lu mat fukki millions d'euros ak ñaar kon leneen nekk na lu am solo bu baax a baax Andri nag di avenir boo xam ne nag firi na firi line di kaf di ree am ambiance donte amuñu victoire ñoom waa Real Madrid waaye loolu du dara bu ñu demee digg-dëgg nag ci classement bi ñu xam ne lii nag mat sa test dëgg la woon classement bu boo si Endrick moo aju ci kaw di seul point boo xam ne moom la gars yi teg ci taabal ji ndax ponkali ñëwagun boole koog Arda Güler notre cher international euh, turc boole koog kii nga xam ne daanaka tamit mooy Brahim Diaz international marocain bi digg milieu terrain bi Modrić euh, euh, magal leen loolee am solo bu baax a baax loolu lépp di taxawaay boo xam ne équipe bi am na ko mu am solo waaye nag ñu gis ko beneen fee boo xam ne avant match bi am kii di Roberto Carlos ak ki nga xam ne moo nekk Ibrahima Mbouit Roberto Carlos gis nga ni euh, lanu ko décoré di ab mooy Real Madrid moom it euh, international Suède bi ñu décoré ko ak mooy Milan ndax kii dafa def jaloore Milan kii def jaloore euh, Real Madrid yooyu yëpp nag bañ ko boolee ba danga ko kenn ko ne jël may sa moo jox sa mooy morom di wane ne nag ñoom ñooñu ñëpp nag benn lan loole nag nga xam ne gis nga tubaab yi dañuy dox seeni bagage moom noon la yaakaar daan dañuy généreux ba ëpp ndax loole dina euh, nekk lu am solo ci li nga xam ni moo nekk euh, foofee ca États-Unis d'Amérique Real Madrid mu nërmeelu waaye nag suer bii nag nga xam ne yaakaar naa ni probablement euh, nag man jàpp naa ni Olmo Barcelone satisfait na si bu baax a baax a baax car fi mu toll nii mi ngi xaar nag dëgg-dëgg nag maanaam club euh, bi ñëw ne laa bëgg ci ab joueur joueur boo xam ne day bàyyi xel ña ko saf mu safoo leen maanaam équipe bi Barcelone safoo na ko waaye Olmo tamit am na cofeel ngir football ànd ak Lamine Yamal ak équipe bam tey mi ngi def ay mouvement ngir mbir mi mën a sotti kon yaakaar naa ni Barcelone su defee tuuti rek ay pexe yu ndaw a ndaw mën naa am mu jot gone gi pexe yooyu loolee lépp mu ci dëgmal ñoom gone Barcelone yi yal na yàlla sunu borom sottal ko ndax mu nekk mbégte ci championnat Espagne boobee nga xam ne nag fi mu toll nii Barcelone bu dëgëree këcc rek mel ni kuuni bu dëj bu boobaa moog Real Madrid dana nekk match yoo xam ni yu coqor mboj la gars yi ci kanam yeneen information